mbas bi bi mu ñëwee bi ñu koy dégg ci àdduna bi ñu naan bon léegi àdduna bi c'est un village planétaire lépp lu am États-Unis lu fa xëyee mën naa yendu fii donc njortoon nañ ni dina ñëw état effectivement foofu def na fa euh, liggéey bu am solo mooy teel a jël ay prévisions xam ne mi ngi ñëw bi ne càpp ñëw na bon tubaab bi ko njëkk am almad la souvent damay dégg ñaan ko njëkk am ko njëkk am mais Sénégal bi ko njëkk am malheureusement fii la feeñee Touba moodu moodu bi mais gestion bi pour man baax na parce que jàng nañ ci expérience yi am ci yeneen réew yi ñu teel a jël les mesures mooy tëj frontières yi vraiment bàyyi téye xale yi ñu ñu ñu bañ a jàngi déclarer état d'urgence couvre-feu yooyu yëpp dina tax ñu respecter yenn mesures yoo xam ni dina tere ki kii bi law mais nan lañ ko jëlee bi ñu koy jël c'est vrai que urgence la woon dégg nañ ko déclarer wu na tiit nañ mais il fale qu'on prépare les sénégalais bala ñuy tëj il fallait qu'on prépare les sénégalais dañoo tëb tëj fekk na transporteur bi dawalkatu minicar bi ndeysaan dëkk tuuba demoon na Koungheul yóbbu fa ay passager war faa jóge ñëw ci loolu la yore njabootam ñu xëy suba tëj ko ni ko doo génn Koungheul bon mu indi loo xam ni catastrophe la ci famille bi euh, keneen ki nga xam ne génnoon na ñëwoon na mag wala demoon na seeti mbokkam wala demoon na benn xew dëj wala ngénte ñu daal ko fa tëj bëri na fi yoo xam ni ay catastrophe yu mag la indi ci ci sénégalais loolu d'ailleurs à la longue moo indi soulèvement bi mais si on avait préparé les sénégalais ni leen euh, d'ici 48 heures dinañ tëj ku nekk teel a dem fi nga war a basé wu ñu teel a jël mesure tëji couvre-feu bi démarré euh, état d'urgence bi démarré su boobaa au moins dina alléger lenn li mesures yi xam nga tax ñu teel ko jël parce que dañoo sukkandiku ci expérience ba bi am bitim réew xam ne lii mooy tax affaire bi taxaw ba a law ñu daal di njëkkantoo ak ak loolu jël ko sans pour autant ñu def étude d'impact bi si li nga xam ni moom la nar a jural sénégalais suba parce que booy xool euh, ñi ëpp si ñu doon kaas ñu doon soulever wu transporteurs yi la chauffeurs yi apprenti et parce que fi ñu leen tëjee moo baaxul ay boromi njaboot lan ñu xëy suba yóbbu yóbbu sa oto Kolda yóbbu ay yóbbu ay passager ñun la fa doo fa jógee ñëw nga toog fa liggéeyoo amoo loo yónnee sa njaboot sa njaboot yow yaay borom kër bi yaa mën a lijjanti Touba noo def ba kii ko ay xale nga fi bàyyi ak jigéen boo xam ne mënta lijjanti donc ñu nekk fa di souffrir nga nekk Kolda di souffrir yow tamit à la longue da ngay génn si mbedd mi ni naa dee mais mais lii du kii c'est vrai que ça ne s'explique pas mais quand je pense que mesures yi état waroon jël foofu si tëj bi mënoon naa gën a mënoon naa gën a souple mënoon naa gën a euh, tege si yoon boo xam ni souffrance bi tey dina dina wàññeeku c'est ça xam nga xam nga aide alimentaire euh, ku xool xam ni am na aussi lu ci feeñ c'est-à-dire que euh, ni ñu war a cartographier sénégalais yi ba xam ni lii lii moo fa yàlla lii lii moo fay ñi nga xam ni ils vivent en deçà du seuil de pauvreté ñi nga xam ne ñoo ñoo yooyu des na pour euh, état mën a xëy suba rek ni day jox aide alimentaire xam kan lay attaquer directement donc il fallait créer des commissions il fallait que ñu liggéey si loolu mënta gaaw comme te mënta gaaw nag Euh, xëy na liggéey bi mënoon nañ koo defee noo xam ni approche boo xam ni dinañ teel a xam les couches les plus vulnérables ñu teel leen a libéré ki nga xam ne ci lii lay liggéey xëyatul une semaine dix jours a ngi nii demul fen nga teeku rek naan ko edd baa ngi nii saako baa ngi ne dina ñëw te gisagu ko non il faut nga teel a li naan jukki les les couches les plus vulnérables laa euh, étude boobu nag ak liggéey boobu xëy na desoon na tuuti ci ci ci ci ci liggéey bi te nekk na loo xam ni aussi moo gën a jur jafe-jafe yi yi nga xam ni moo tax euh, ñu agsi fi tey